sëtun bu baax bi toog fii doomi Seex Gaynde Fatma ji teewe ko seerees mbay dàgga France loog yàq waaye ngóobét na ko ñun ñépp nan may ak digloo xool su daanee nag ma ñëw bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillah lahu shukru walsanaau qaala fi muxkami tanzilihi wa innahum indana la min almustafina alaxyaar qul alhamdulillah wasalaamun ala cibaadihi alladina istafaa allahu xayrun amma yushrikuun summa awrasna alkitaaba alladina istafayna min cibaadina wasalaatu wasalaamu ala almabcuusi raxmatan lilcaalamin almustafa almuntaxa alamin wa ala aalihi wa saxbihi algurri almayaamin wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amin ixwati fillah نحييكم تحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مباركة باسم خليفة الشيخ الحاج سرنجي شيخنا جي هنا ها نحن وقد اجتمعنا مجددا في البقعة المباركة تعظيما لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم واسترجاعا لسيرة الصالحين الذين كان النهج المصطفى نهجهم وسنته ديدنهم إخواني وأخواتي في الإسلام أتساءل وأنا أكتب هذه الأسطر بعجالة وظروف صعبة هل شهد التاريخ يوما من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شيخنا القديم له وهل شهد التاريخ يوما man saara ala nahjihi bidaayata umrihi ila axiri lahdatin min xayaatihi am na ñu ñu gën a yey am na ñu ñu gën a mokkal taarix ba ca la la mu la mu njëkk a def bala mu mujj a def waaye taarix bu mën di doon am na solo naam ñu koy waxtaane waaye lañ ca mën a jële lañ ca mën a jëfandikoo lañ ca mën a roye loola mooy la ci ëpp njariñ yu jëte ñaar nag ñaar yi nga xam ne yaakaar nañ ni moo ëpp njariñ ci jamono bi ñu toll ñu bëgg ko waxtaan nga xam ni moom la sëriñ bi doonoon mën nees na koo jàngale ci sëriñ mu Moustapha jàngale mu wér te dafa mel ni jàngale ko ci moom moo gën a wér jàngale ko ci keneen ku mën di doon ndax keneen koo jàngal koo ko jàngalee ci moom dañuy wax ni la ko indi woon ci sëriñ bi mooy bëgg doonu taalibe kon da ko sàkk kii nag sunu borom da koo jaxasoo da koo jaxaseeg sëriñ bi nga xam ni mu neex ko ak mu naqari ko dafa ànd ak sëriñ bi seeni deret jaxaso kooku nag bu wëlbati ko doon taalibeb sëriñ Touba mu yaakaar ni kon foofa lañ war a gën a mën a jàngale taalibe war njariñ li taal doonu taalibe di jariñ doomu wax nañu ni sëriñ Mourou Moustapha li jiitu géej gi maam noo ko yor waaye bi sëriñ bi ñibbisee nag jëm gànnaar ndax xam ngeen ko moom ak coono yooyu nga xam ne moom la ko suñ borom tegoon te lépp yërmande jaam yi dong taxoon mësta noppalu benn yoon mu ànd ak moom ak Cheikh Mouhamadul Fadal yóbbaale leen gànnaar wax nañ ni bi muy dem bi ñuy dem ñoom gànnaar ci fukki at ak juróom ci lañ toll fukki at ak juróom ci lañ leen commencé tarbiya ci lañ leen commencé yar ci lañ leen commencé jàngalu xiif ci lañ leen commencé jàngal mar ci lañ leen ja commencé jàngal xidma ci fukki at ak juróom loolu nag bind wu rëy rëy la ci ñëpp képp kuy ndaw fii dama seetlu ni nit day am ñeen fukki at ak juróom bu ñu ndaw ñi mu yëkkati loxoom bëgg caa boole boppam loolu wuute lool ak ñi nga xam ni ñoom la ñuy roy ñu ñuy royloo ñooñ ci fukki ak juróom ci la ko sëriñ bi yóbbu gànnaar jàng na la mu war a jàng sol na ko lam ko war a sol waaye bañ jógee gànnaar ñëw céyeen ak muritu gu metti dafa nekk xiif gu metti dafa nekk wax nañ ni sëriñ bi nettali na te njaareem ni yo xiif boobu nga xam ni daloon na xaadim Mustafa daloon na yonente bi sallallahu alayhi te moom mu war koo roy ci lépp ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy jaamu yàlla day jël ay xeer takk ko ci biiram ngir mën a taxaw nee na xiif boobu lu ko raw dal na ko mook ay ñoñam ca Ceyeen Jolof ñoñam ñooñu nag Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi kenn la ca woon wax nañ ni am na bis sëriñ bi dafa sàkku ci ñoom moom Cheikh Mouhamadoul Fadal sëriñ Masamba ak sëriñ ma Roqaya Bousso sàkku ci ñoom ñu bindal ko ay kaamil ñu nekk ci benn néeg boo xam ni duñu ko génn lu dul yeesal seenum njàpp la ñuy dunde ki ma ko wax nee na ma ñett maanaam bis bu nekk daqaari euh, daakaanday werek moom lañuy ñuy dunde tey akum ndox moom lañuy macc akum ndox bu subaa duñu am loolu ndoxum kese lañuy naan bis ba ca topp fépp la ñuy la sëñ bi di def ci loxoom kenn ku nekk mu jox la nga mëq jàllale koom ndox mu ñaat ba suba xiif bu metti bii xiif bu rëy bii liggéeyal sëriñ Touba jaral na leen ko waaye ba ñu noppee sëriñ bi dafa wax ni daf leen dajale jël këll boo xam ni da def as cere daa jël këll boo xam da caa def as cere jël Euh, ñeex moo xam ni bisaab lañ jël xooyal ko jël ko sife ko cere ja ngir bégal leen wax leen ni leen alali adduna de tey jii lii la ma ci suñu borom dënk xéewali suñu xéewali sëriñ tubaab moomu nga xam ni bis booba lii rek la amoon ci alali adduna moom la ñuy jariñoo tey kon war nañoo xam bu baax a baax li ñu may lii ñu am kon taalibe gi ak wormaal gi mu wormaaloon sëriñ Touba kenn mënu koo nettali wax nañ ni bu sëriñ bi masaana woote njaareem sëriñ Modou Moustapha bu ñëwee du bokk ak nit ñi jotaa day beru ngir ñu xam ni sëriñ baa ngi ñëw ci moom lañ koy dégloo ndax yitte ji ko yëkkati mooy sëriñ bi moom rek lay déglu mooy waxaat mbooloo mi bu sëriñ bi di ñëw ni leen sëriñ baa ngi egsi kenn ku nekk defaratu toogaayam te moom du defaru toogaayam ndax na war ma gi nga xamante ne moom la amoon sëriñ bi war ma woogu dafa mat sëkk kon kooku mooy sëriñ Modou Moustapha doon taalibeeb sëriñ Touba bu wér yaru ci loxoy sëriñ tubaa ba mata samp dara ci ñaar fukki at ak juróom ci la ko sëriñ bi sant mook Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ sàmba ñuy sañ ci ay dëkk ñaar fukki at ak juróom laa wax nit day am fanweeri at nekk ci biir kër baayam te fa yéene koo génn nit day am fanweeri at ak nangam fas yéene wut at am soxna wax ne teel na ñii de ñii taxawoon sunu jamono ñoom ci ñaar fukki at ak juróom waxuma la taxawal ak kër waaye ay dëkk lañuy ñuy taxawal yor mbooloo nekk seen ginnaaw nekk seen kanam kon nag loolu bokk na ci li nga xam ni war nañ koo góor góorlu war nañ koo jànge ci sëriñ mu Moustapha li jiitu na ndax booba sëriñ baa ngi fi ci ñaar fukki ak juróom ci la taxawal tundóo bi sëriñ bi daf leen a waaye bi mu ko taxawalee nag ci ñett ci ndigal sëriñ bi dafa am lu leen sëriñ bi digaloon dafa wax ni ñetti fasangi yoo xam ni ku ko war jamono ngi ñëw fii juróom fukki at wax jooju ba ko sëriñ bi wax mu ngi toll ci mille neuf cent dix-neuf kon bu ñu ko nattee day toll ci année soixante-dix yi nee nag jamono ngi ñëw joo xam ni ñetti fasa ngi yoo xam ni ku ko war lu mu yàgg-yàgg fa ma nekk danga ma fa fekk ñetti fas yooyu mooy lan limaan lislaam ak lixsaan waaye mu wax ni fas wu ci nekk nag am na gàllankoor wuy dox seen digganteeg moom bu jamono boobu egsi fasu liimaan nee na dërëm dina dox seen digganteeg moom fasu liimaan nit dina ko war ba mu yàgg dërëm wàccee ko ci kaw loolu nag kenn ku nekk mën nga koo set nee na fasu liimaan nit ko war ba mu yàgg dërëm wàccee ko ci kaw mu ni fasu lislaam bu ñu demee ba egsi ca waxtu woo tubaab yi dinañ ko rocci ba mu set wicc dara dootu fi desete fasu lixsaan nee na jigéen dina dox seen digganteeg moom ana ñi fi dund tasawuf tey waaye nag ñoom dañoo xamoon loolu sëriñ bi da leen yee xamal leen yeetal leen ba yii fas ñu war ko te fas yéene wuñ koo wàcc kon bind woowu wala bind yooyu ak nekk googu nga xam ne moom la sëriñ bi sëriñ Mor Moussa nekkoon taalibu sëriñ Touba yaakaar naa ne ci jotaay bu mel nii ah ngir bañ a guddal loolu rek doy na ci li ci topp ñeent fukki at ñeent fukki at nga doon koo xam ne adduna mës gis ku mel ni moom adduna du gisati ku mel ni moom mu yar ñu mat sëkk. ñoo xam ni lépp lu doomu adama di war a def ci doomu adama lu yàlla di may nit may na leen ko maam Thierno Birahim ngi toog maam Cheikh Anta ngi toog maam Cheikh Ibrahima Fall ngi toog suñ daam Abdourahmane Lo ngi toog mag ñu baax ñi ñëpp ñu ngi ci ginnaawam suñ mën Moustapha ci ñeen fukki at mu war a donn loolu war a jiite loolu lépp war a dal lépp war a nekk ci benn loxo loolu ak mat rek moo ko mën a may moo tax ca cëyin bu sëriñ bi woowee ni leen dama leen a bëgg a dama leen a bëgg a dimbali li nekk fi man day jaay ku ko jënd rek moo ci jot la njëkk nag ngir ngeen man cee jot mooy jaayante fa jaayante suñ falu jaayante suñ Masamba jaayante suñ moo roqee jaayante ngir da leen a seppi wax leen ni leen li ñu bokk daf leen a may li ma am loolu nag dafa valable ba léegi nag waaye moom jaayante ga da caa teg sëqal boppam fa seenee tudd soloti yëre ngir dëggal baat boobu ba turu njañ jóge foofu waaye ba ko sëriñ bi gisee dañu ko loo ci jublu mu ne ko xanaa bëgg noor bëgg nurub taalibe mu ne ko yow lañu la fàggal ci ak nite lañ la ko fàgg ak nite dong moo mënoon a watu sëriñ Tuubaa lépp nekk benn kàddu maam Thierno Birahim moo yar Serigne Mor Moussa moo ko jàngal lu ëpp ci ndawam ci ay loxoom la nekk te bàyyee ma nag maam Cheikh Anta nii la meloon ci moom kon ñu mel noonu Serigne Ndaam Abdourahmane yar leen jàngal leen ñu mel noonu nga bëgg nekk seen kanam loolu du ay caaxaan loolu il faut nga mat sëkk. doo koy mën a doon ab daanukat du doon loolu il faut nga nekk nit koo xam ne da nga naan coow li ngay wax nga ko teg nga teg ko ci xel mu xel mu rafet moo tax sëriñ Mouhamed Moustapha ci loolu la yore woon yoon wi dafa jàngal sëriñ Abdoulaye ni ko ay gor buumuk teraanga rek moo leen mën a yeew dugaleen leen ci néeg ci lii la seq lii la seq lii la seqoon ak ñi mu seqaloon ñëpp xam ngeen ni sëriñ Abdoul Aziz Dabakh nettali na lépp yéen ñëpp ngeen dégg ko ni ba mu ñëwee seeti sëriñ Mourou Moustapha da ko laaj ni ko ndax jaar nga ci Baye Thierno ndax jaar nga ci Baye Cheikh Anta mu ne ko jaaruma ci ñoom mu yóbbante ko ca ñoom ngir bëgg mu jaar ci ñoom war ma jum leen joxoon moo taxoon dafa wax ne ñett ñii laa jamonoon teel kenn ku ci nekk xam naa la ma war a siq ak moom te dinaa ko def ki ci njëkk mooy ñi ma siqal ñi nga xamante ni dañoo ma mat bàyyi ñooñu dinaa leen jox cëru waajur bu mat sëkk ñi nga xam ni dañoo nekk ay moroom te kenn du woon moroomam ndax doomi Sëñ Tuubaa te doomi Sëñ tubaa du moroomante kenn waaye nii la ko waxee ñooñu nag kenn ku ci nekk su ma la gisee dinaa la dund sa bopp sama sama bopp wax ne am na ko fi wax léegi nii képp ku ne la nu ma koy def namu mu la def a tax kon noonu rek la leen defoon def leen nit ñoo xam ni sëñ Modou Moustapha bu masaan a bëgg a jël benn xaraar benn décision wax nañu dana bind ab leetar du dajale mbooloo mi nii ñuy réunion wee kenn xam nga mbooloo murit ay kilifa nekk fa su ma amee xalaat bu rafet sama kilifa bu waxee ba noppi dootuma ko waxati moo tax ci xalaatam bu rafet danañ bind ay leetar kilifa yi nga xam ne rafetlu rafetlu na seen xel kenn ku nekk mu jox la leetar ni la nangam ak nangam di la bëgg dugg dama bëggoon na nga wax ma ci sa xalaat xalaat boobu ci leetar ba ngay wëlbati bind ca xalaat ba yónnee ko ko bu ñëwee mu dajale xalaat yëpp wax na ñi Sëñ daan na ko laaj bu dajalee xalaat yi ba noppi am na ci ñu mu ko daan yónni ngir jëli xalaat ya bu noppee danaan koy Abdu Lahat yow lu ci sa xalaat te boobu Cheikh Abdu Lahat xam ngeen ni ci at at at yi néew na lool waaye loolu dañuy indi ci ñetteelu ñi mu jamonoon teel mooy ñetteel ñetteelu ñi mu jamonoon teel mooy njabootu sëriñ Tuubaa gi dafa wax na ñett ñee ñetteelu ñi ma jamonoon teel nag mooy njabootu sëriñ bi ñooñu lu ñu am dinaa ko bàyyi ak ñoom te lu ma am ba seeni ko bokk ak ñoom ku mel nii nag daan neex a nekkal lii moo taxoon lii moo taxoon la mu bëggoon la sëriñ bi la sëriñ bi sàkkoon ci moom benn loxo mënu ko jumaay Tuubaa benn loxo mënu ko taxawal de sëñ Touba suñ Mourou Moustapha jàmbar la lool waaye benn loxo mënut a taxawal jumaay Touba jëli sëriñ Mourou Mous jëli sëriñ Touba ca njaareem ak ni ko tubaab yi defoon bëgg koo yóbbu Touba moom jëmmi kese mënu ko waaye nag xelam mu rafet ak ni mu ànde ak mat gi moo taxoon lu mu sakku ci ñi ko wër kenn ku ci nekk nga def ko kon loolu di ay di aw bindaat woo xam ni ñiy jàngale li ñuy wax management ci yeneen école yu mag yi. loolu war nañ koo jëlaat nag indiwaat wa amruhum shura baynahum cheikh Mouhamadul Moustapha da ci amoon méthode boppam moom bu wér boo xam ne nag da ko adopté ak culture bi mu nekkal ndax réunion am nañu ko mën a def jële ca dara waaye mbooloom murit yoo xam ne kenn ku ci nekk am nga koy wagar boo leen dajalee bëgg ñu jox la seeni xalaat ndaw ña duñu am xalaat moo taxoon mu jëfandikoo eh, xel mu rafet moom moo taxoon mu daan wax ni kilifa gu ne war naa am ñu muy diisool ñooñe nag dafa caa wax ñaari critère benn ba mooy mu reggub reer bañ laa yaakaare dara ba ca des mooy mu deñu réer ñaari sart yi la tegoon ci ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom mu leen laaj xalaat kon loolu di ay mbir yoo xam ne dafa mat a bàyyi xel ndax daf ñoo jàngaloon ni dafa am kilifa gune am na ay takk yoo xam ni mënta tàggali ko ñoom ñu takkandeer mel ci nit kilifa gune am nga doomu aadama yu mel ni noonu ci yow te mënoo ci dara kilifa gune am nga ñoo xam ni ni takk ndeer mel ci doomu aadama ciw naaj noonu la mel ci yow duñ la jariñ dara te mënu tàggook ñoom nee na kilifa gune ne nag war nga xàmme ñooñ ne mënu tàggook ñoom xanaa nga ànd ak ñoom rek ci nañ mel waaye nag boo waree jëfandikoo loo xam ne nit ñëpp ko war a jariñoo nga seet ñi reggub reer te dañu réer ñu wax la la war a am ndax ñooñu kat li ñuy dëkkoo sa digganteeg yow mooy war naa mën a am war naa mën a am rafet na jekk na wala loolu de sëriñ bi yaakaar nañ ni rafetul jaaduwul ndax ñoom sañ nañ ko amul dara lu la yaakaar ñi ci des nag boo àndeek ñoom sañ nga ko man nga ko sañ nga ko man nga ko kilifa yu ne looloo leen su kilifa yu ne kilifa yu baree baree bari lii moo leen dugal ci ay toox yi doona sañ nga ko man nga ko sañ nga ko man nga ko ni kilifa goo xam ne boo ubbee sa bunt boo fëggee boo tëjee sa bunt kenn du la fëgg boo génnee sa buntu kër am mbooloo mu taxaw di la xaar yor seeni addiya te fii ko biwoo duñ dem kooku boo ne ko taalibey sëriñ Touba yi kat am nañ leen naqari dana la déedéet dara xewut ndax man la daan xew sama diggante sa la daan xew diggante samay taalibe ak sama baay la daan xew diggante taalibe yi ak samay maam loolu mooy xew sama diggante ñoom ba tey te maa dàqalee sama baay maa dàqalee samay maam ay kër ndekete yëgul li xew loola nag la koy waral mooy sañ nga ko man nga ko ñàkk xàmmee takk ndeer yooyu ñun na dañoo digaloon ñun taalibe yi nii taalibe bu ne na nga taqoo ak jikkoy doom jikkoy doom mooy lan ku mu dendal nga weex ku dugal sa biir ku ci ku ci dugal sa loxo mel melokaanu doom doom moom lu mu tax loolaay mel ni melokaanu doom waaye moom doom moom du wëlbatiku du soppee moom la ñu si ñëpp laa doon jàngal ni dañoo war a mel ni ëpp ëkk te bañ a mel ni xob loolu rek mooy leçon Cheikh Mamadou Moustapha ci ñun waaw kon tey bu yoonu murit nekkee mbooloo moo xam ni ci benn kàddu lañu am bu bu kilifa ga waxee ñëpp àndandoo ca sëriñ Mour Moustapha tax loolu dafa war a leer mm-hmm. Sëñ Fallu bi muy ñëw fekk na lépp ni nër lépp lépp leer nañ ñëpp nekk ci benn loxo loolu nag bu ko amee bees ko amee ci matuk Serigne Mourou Moustapha rek lañ ko amee kon loolu képp koo xam ni suñ borom jox na la mbooloo jox na la kër sax laa wax sa biir kër nga war koo jiite ci mat gi ak doxalin wii rek nga ko war a mën a jiite doxalin war a rafet eh, dafa mas a digal loolu lay tëje dafa masa digal sëriñ Modou aw Balla bi maam nu làqoo mu ñëw fa def fa ab diir bay ñibbi ni ko sëriñ Modou de dama am ay baat yu ma la bëggoon a dénk doomu aadama yi nga xam ne ñoo ànd ak yow nañuy añ ci sab añ tey reer ci sab der mm-hmm. nanga nangu ñuy añ ci sa doole mm-hmm. tey reer ci sab der loolu lu muy tekki mm-hmm. mu ne ko sama der bii de bu doonu mbuusa mënatu def pepp lu ne lañ ko wax waaye mu dëgër rek nekk ci li mu war a nekk lu ne lañ ko wax waaye mu dëgër rek nekk ci li mu nekk nee na waaye man wóor na ma ni sama diggante ak Serigne Touba foofa rek laa teg sama tànk te du ma ko teg mukk foofa laa man di wax foofa laa jëm kon nag loolu dafay jàngale moo xam ni dañu koo fekke fii barab bi ñu nekk di Badar alaaji Sëriñ géy bi muy taxawal bisam bii lu nekk la dégg ñun ñii di ak njabootam bi ñuy gën a nekk ndaw léeg nga fekke jataay boo xam ne ñoo koy wax la ñuy wax bi nga demee ba xàmmee danga nga naan waaw loolu noonu lañ nan lañ ko mën a waxee te ñoo koy wax bu ñu noppee moo leen di jox bu añ wala mu jox leen bu reer moo ne loola de day mel da nga yaakaar ne da ko ump fekk moo ko moo la ko gën a xam tal na fi añ ci gàmmu Badar nit ñi tibb añ yi yóbbu ko seeni kër dem ba ci àll ba ñu tuur ko ngir ngir bañ li muy taxawal mu taxaw waaye xamuñu ne liggéeyu suñu borom bu bu yàlla nag kenn mënu ci dara liggéey bu suñ boroom nangu kenn mënu ci dara kon sëñ Mor kat wax na ni lu ab lu lu waay liggéey ba doon ab seex ëppale wóoma ko ndax ba nga koy liggéey mag yow ñoo ko ànd lépp lu waay jox sëriñ Xaadim Moustapha jox naa ko lu ko ëpp wala lu ni toll waaye terewuma ma doon taalibe sëriñ Xaadim Moustapha kon nag lii rek mooy li nga xam ni moom la war a jàpp mooy li ñu war a dimbali mooy li nga xam ni mooy bind wi nga xam ni moom la fi war a jële mooy ku fi war a jóge tey war ngaa nàmmat sa taalibe war ngaa nàmmat sa pas-pas te xam ni yoon wi ñu nekk yoonu topp yoonu toppante la di yoonu pexe dama koy wax ba tey di yoonu pexe doomu adama bu nekk fa ngay nekk suñu borom moo la fa teg fii sëriñ naa nekk tànn ko ndax li ci ne dama koo xam coono bu mu nekk xam naa ko amul waxtu wu ñuy umbante amul dara nag lu ko doomu aadama di wax ci lu jëm ci kër gi te duma ko wax kon coono yi mu nekk yëpp xam naa ko du ban benn bànneex nekku ci coono yi kese kese kese kese moo ci nekk mu nangoo togg loolu kon loolu du doom lu doomu aadama di wut lu doomu adama di xëcc suñ borom a koy teg ci loxol nit kon ñi nga xam ni ñoom la ko séqal lenn rek lañ ko ameel mooy nangu topp ci ginnaawam te nangu koo jàppale ci yan boobu ndax kat yan bi moom boo ko ci jàppalee suñu borom dina ko ci jàppale boo ko ci jàppalewul suñu borom dina ko ci xanaa rafet ci dong xanaa rafet ci dong waaw ndax la li ñu daloon suñu diggante ak tubaab mooy la mu waxoon ni kenn yéen murid yi kenn ku ci nekk